ñoo ngi bëgg wax communauté sénégalaise ak ko bépp boo xam ne mu ngi intéressé wu mbiru éducation ak formation que jàngale nañ ben at formé nañ ay enseignants boo xam ministre de l'enseignement de l'éducation nationale moo ko laajoon ñëw dolli ko suñu liggéey bu ko doolee suñu liggéey dafa am lu wara tek suñu loxo loxo ñepp ñoo xam ñoo ngi yëngatu ci liggéey bobu ba légui defuñ ko ñun gis nañ ak waxtaan nak suñu doyen amu ci xalaat ci mbiru koppar bobu coordination de Dakar waxtaan nak rectorat amu ci xalaat le bureau national SAES e bureau national SAES e waxtaan ak euh, ministère d'enseignement supérieur mu koy promettre mais ñun tay dañu bëgg wax né ne kontaanuñu kontaanuñu bu nga xamé né def nañ suñu liggéey moy former enseignant yoyu mu nekk un surplus su suñu liggéey bu ñu war def annuellement sans ñu wax dara ba formation bi jeex depuis lors jëm nañ jëm nañ waxtaan jëm nañ une ministre bi mu comprendre lu ñuy def mais ba légui les ministres ni ministre bi à fulaluñu donc section bi ñun attitude boobu duñ ci kontaanul dara kontaanuñu ci attitude boobu parce que attitude boobu moo ngi commencé depuis ministre Mary Teuw Niane ñoom ñi wone woon Mary Teuw on ak Oumar Anne wone seen ñàkk pas-pas ci formation enseignant yi te xam nañ ne éducation moo yor dëkk te éducation commencé na ci formation enseignant yi enseignant yi nga xam ne dañoo bàyyi lépp engagé wu pour jàppale état bi nga xam état bi dafa am problème ay enseignants enseignants yoyu lañuy former tey ñu former leen war a continuer formation bi ñu bloquer formation bi parce que duñu bëgg bëggu fay ñun mbiru payor bi sa ñu mais ñu gëna sonal mo ñaka fulal formation bi ci bopam surtout ñaka a également FASTEF alors bu Omar Cheikh Omar an ministre Cheikh Omar an ñëwé ak nu mu xamee université ak nu muy école suñu école bi formation régler définitivement parce que lu ko ñor la war doon qualité enseignement yi qualité enseignant yi ministère am sonalu carrière sonalu ko ñun xam ne ñuy enseignant yi ak personnel technique yi ñu ñuy inspecteur le terrain sonalu loolu nag nekk suñu tiis mettiñu lool parce que dañoo foog ne géew bi ñoo ko bokk pour mu avancer dañu ñëpp dañu war a jàppale ñu jàppalante te loolu mooy indi li ñu ooyee émergence. dañoo bëgg aussi xamal ne fasef def na formation bi di xaar beneen corte ñu ñëw waaye beneen corte mënut a ñëw tant que 900 900 formés yi joxuñ leen seen lijaasa mooy délibéré wuñu mu ñu délibéré nag parce que ministère de l'enseignement supérieur deful lu mu war a def. Nous dañ mën nañ nañ année carrière Nous war a ñëw année seen carrière te ñu nous am na nous xam retraite loolu mbiru dignité nit la dignité nit en tant que syndicat enseignant mënuñu continuer di xool loolu dafa tiis trop nous. ñun dafa métti trop su ñun qualité et mbiru dignité enseignant yi loolu moo tax tey ñu di pour que nous ñu ministère réagir xam formation est l'éducation éducation et éducation est base développement base d'émergence. Nous voulons dire wax ministre conséquences Nous ak banque responsable parce que nous kese bu nous nañ réglé

Le gouvernement de l'éducation, éducation xam ce que loolu à partir de 9h bu 9h nous ñu banque suñu quand même arrêté waxtaan ak pour que nous, xam nous avertir le ministre c'est un avertissement nous dit que le ministre a nga une décision rapidement parce que beaucoup de problèmes sont suba problème